maha taifatin ànd ak ab kuréel mbaa nga ne ab groupe mbaa nga ne mbooloo minal astixaa yi ci ay xarit li ziyaarati daaril asaari ngir visiter kërug jeexit ya daarul asaar mooy kërug aada yeeg cosaan yi maanaam daal li ñuy wax musée fa ñu dajale dañ doon ne woon ci maam yaag maamaat ya mu yëf yu yàgg-yàgg ñu koy fonk ndax loolu dañ koy dajale moo tur daarul azar al arabiyati day ko jug arab fa machay naa te nu dox ilayha jëm ca moom waxat taxallafa te des na gannaaw is naa ni ñaar min naa ci nun araada ñooñ bëggoon nañu an yasora ñu visité mahadan ab institut aaxara beneen faqaabalanaa te jàkkaarloog nun rijaalu daari góori kër ga maanaam ñooy liggéey ca daarul asaar wa sharaxoo te ñu expliqué la naa ñeel nu kasiran lu bari minal asaar yi ca jeexit ya alxajibat yi aj yéemu wara ay naate nu gis annaasa nit ña yata am maloona ñuy setantal sinaaxata ajdaadihim xaral ak seen maam ya wa ka annaha daanaka xarala googee tunaadihim dana leen woo naa leen an eey imaloo jëf leen kama xamiloo nañu jëfe woon tasiloo ko ngeen àgg ilaa ma wasaloo jëm ci lañu àggoon ñoom itam nee na man ak meneen mbooloo ci sama xarit yi dañoo génnoon ne nan nemme ko ji musée ba nga xam ne dañ cee boole dañ faa dajale daal aada yeeg cosaan yi nga xam ne sunu maami arab yi ci ñoom la soqi ko bay dem nag am na ci ñaar ñoo xam ne moom dañoo bëggoone nemmi ko beneen institut ba beneen établissement moo tax ñoom dañoo des gannaaw ànd ñoom nun mun nag ban demee ñuy liggéey ca daarul asaar dañoo daal di teeru dinu leeralal bu baax a baax ya fa nekk ci mbiri aadaa ki cosaan nu gis tam nit ñi ñuy seetantal loolee nga xam ne seeni maam ñoo ko fi bàyyi woon muy xeetu xarala waaye daa mel ne xarala googee seeni maam xarala woon te buñ dee xool ya fa nekk di ko gis day mel ne jëmmi xarala googee day waxanteeg ñoom naa leen eey bu la ñoom rekk ci xool liggéeyub seen maam di yéem daal di bàyyi déedéet da ngeen di góorgóorlu jëf nañ jëfe woon koyit da ngeen àgg fañ àggoor mbaa sax ngeen weesu leen waaye nag bu leen dooloo rek damoo seeni maam ak seeni xarala at tamrin at taani ba tegal kulla fialin bépp fixal min al afxaal yi ci fixal yi al aatiyat yi aji dikk fii jumlatin ci biir jumla mus ni dan mbir mu ngay aji wéeru ko ilaa kulli ma jëm ci lépp loo xam ne yattasilu dana mën a jokk bi sii ci moom min damair rafi ci damiri rafaaya al baarisatee aji feeñ dafa indi yetti fexal benn bi di almaadi te mooy jamaha boole na benn ba di mudaarihu te mooy yu sinu dana rafetal ba ci des di lamar yu us duq dëggalal mu ne nag ndegam jàngal léegi ñu wax la ne la damir yii ñoo mën a jokk ci almaad yi yii ñoo mën a jokk ci mudaarihu yii ñoo mën a jokk ci lamar kon nag léegi jëlal jamaha def ko wax bu daanu te jokk ci mboolem damir yi nga xam ne ñoo ci mën a jokkute nga jàngoon ko léegi nga jàll def ko yu sinu jàll def ko usduq loolu nag moom jafewut at tamrin at taalit asnid wéeral al fi'la fi'al ba al awwala bi aji jëkk maxa baqaa'ihi ànd ak desam nga fil ibaarati ca wax ba al aatiyati bi aji dikk ila kulli damairi rafxi jëm ci mboolem damiri rafaaya allati ya nga xam ne tattasilu danañu jokk bi ci ci moom maxa muraaxaatima ànd ak sàmmoonteeg la nga xam ne xad yaxdusu dana xew ba amaana mu xew minat taxyiri ci soppi fil fi'li ca fixal ba attaani bi aji ñaareel wax bi bëgg a dikk moo di saafara tukki na moom waaja li yaqtabisa ngir mu niitoo alilma xam-xam wa tajaariba ak i nattu dañ ko wax ay natt rek waaye mooy expérience maanaam xam loo xam ne yàgg gëstu ak yàgg nemmi ko moo la ko xamal ñu wax at tajribatu wax boobu nee na fexal bu njëkk bi muy saafara dafa nekk fexlul maadin mu ne nag léegi jokk ci mboolem li nga xam ne moo ci mën a jokk ci ay damiri rafaa ba noppi nag boo jokk bu ne nga xool fexal ba ca topp bu ñaareel ba liiq tabi sa nu mu war a soppi ko ba dëppoonteeg bu njëkk bi xam nga saafara man nga ci jokk tu kon ngay wax saafartu tukki naa man xool nag noo war a soppee li aq tabisa kon day soppiku li aq tabisa al ilma wa tajaariba soo nee saafar naa tukki nanu bu ñaareel bi day soppiku li naq tabisa al ilma wa tajaariba boo nee saafarta tukki nga yow góor gi fee day soppiku li taq tabisa al ilma wa tajaariba bu dee saafartuma mu soppiku saafartuma li taqtabisa al ilma wa tajaariba bu dee jigéen ji mooy saafarti tukki nga yow jigéen ji li taqtabisi al ilma wa tajaariba bu dee ñaar ni ki saafara bu ñaar ña fa nekkut ndax waxoon naa léegi saafartuma ñaar ñi nga jàkkaar lool kon day nekk saafara li yaqtabisa al ilma wa tajaariba bu dee saafartum fee soppiku li taqtabisu al ilma wa tajaariba boo defee fee saafar na mu soppiku li yaqtabis na al ilma wa tajaariba soo defee saafartun na maanaam jigéen ñi nga jàkkaar lool fee soppiku li taqtabis na al ilma wa tajaariba yu mel noonu la bëgg التمرين الرابع ضع فعلا ماضيا متصلا بضمير رفع في كل مكان خال ثم اذكر ربغة ما بقي لدس من ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالماضي برب دara nekkul bu ne def fa fihlul maadin boo xam ne yell na fa ba noppi tam nga jokk ca damir rafa ba nga xam ne moo ca war a jokk nga xam ne moo yell ci béréb booba gannaaw boo defee loolu nag nga xool ba xam damir rafa yi nga xam ne ñëw fis te daa jokk ci alfihlul maadi yi yan ñoo ca ñëwut nga ne nangam day ñëwut albanaatu gone yu jigéen ya digganteem ak addarajaati man nga fee def rakib na muy albanaatu xale yu jigéen ya rakib na war nañu addarajaati welo ya antum yéen digganteem ak al ahraama man nga fee def zurtum antum yéen zurtum visité ngeen al ahraama pyramide ya diggante al xujjaaju ak màkkata man ngaa def al xujjaaju ajkat yi xasadoo jublu nañu màkkata man nga ne it al xujjaaju shaahadoo jàkkaarloo nañu ak màkkata anta digganteem ak xalal fuqaraa yi nga seet loo fi teg ngay def anta yow xatafta ñëwante nga xatafa bi firi ñëwante xëy nag tàddaroo lay doon anta xatafta xalal fuqaraa yi anti yow jigéen ji digganteem ak al awaaniya nga teg fi fihlun maadin diggante anaaman ak asnaani samay bëñ ba tey nga teg fi fihlun maadin naxnu nun digganteem ak fi naxari ba tey nga def ko noonu antuma yéen ñaar digganteem ak àll saariqi nga def ko noonu fu ci nekk daal nga fay teg fixilul maadin jokk ca damir ba nga xam ne moo yàlla ca fixilul maadin mooma ba noppi nag nga xoolaat ba xam damir yi nga daan jokk ci fixilul maadin dañuy fés ndax am na ci bu manquéem déet bu ñëwut bu ñëwut rek nga ne nangam day ñëwut التمرين الخامس ضع فعلا مضارعا متصلا بضمير رفع في كل مكان خال ثم اذكر ما بقي من ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالمضارع bi dara nekku da nga fay teg mudaari moo xam ne nga ci jokk damir ba yelloog moom ci béréb booba gannaaw bi nag nga indi ne ah damir sàngam day mën naa jokk ci mudaarihu te bokkul ci ñëw fii fee nga leeral leen mu ne ak tilmiitataani ñaari élèves yu jigéen ya mais nga ne ta takulaan danañu lekk alxalwa gato takulaani su boobaa an nga foofu mu daari moo xam ne jokk nga ci li yelloo moom anti yow tot yi xii na da nga topp umma ki sa yaay nga def ko antuma yéen ñaar ilal iskandariya jëm iskandariya ki antuma tusaafiraan ilal iskandariya alfallaaxoona baykat yi li siyaadati niili mel ni alfallaaxoona yafraxoona li siyaadati niili ngir doole ku dexu niil gi alkalbaani ñaari xaj ña ne yaxrusaani almansila antum yéen taxdimoona watanakum wala antum tuxiboona watanakum التمرين السادس حول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية ثم اذكر ما بقي من ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالماضي yenn jumlay fixal yi bëgg dikk te nga leen soppi ay jumlay lisim maanaam nga xam ne léegi li fixal jiitu rek moo ko taaroon jumlay fixal soo wëlbatee faaxil ba nag léegi mu soppi ko mubtada rek daal doon jumlay lisim nga def noonu soo defee loolu ba noppi nag nga seet ba xam damiru rafaa yi nga xam ne ñoo fis te mën a jokk ci almaadi yi yee ca ñëwut nga tudd leen ne ñoom day ñëwuñu bu dee benn léegi bi ne ak katura bari na asunnaahu xaralakat yi wala ouvrier yi fii misra ci misra ngay def asunnaahu katuro fii misra saaxada dimbale na alqarabiyaatu jigéen ñi ko jóg village maanaam village waas yi azwaajahunna seeni jëkkër ngay def alqarabiyaatu saaxad na azwaajahunna xassama seddale na asharikaani ñaari partenaires yi ribahuma seen bénéfice ngay def asharikaani qasama ribahuma su ko defee ki jàng mu xool at tamarin ak saabi daal di koy def xëy na du jafe isnaadul afxaali lii mooy wér fihaal yi as saxiixat yi aj wér wal mutallati ak yi aj ràgg ila damairi jëm ci damir yi albaalisat yi aji fes dañoo bëgg a dugg ci fihaal yi nga xam ne ñoo wér mbaa ñu ràgg boo ci bëggee jokk damir bu fes lu ca war a xew ñu njëkke nag isnaadu saalimi wéer aji mucc wal mahmuusi ak mahmuus wal misaali ak misaal ila damaari jëm ci damir yi maanaam fexeel bu nekk saalim ak bu nekk mahmuus ak bu nekk misaal boo ci dee jokk damir moom moom lay njëkk andi moom moo nekk fii sami'tu dégg naa an nidaa sami'naa dégg nañu an nidaa ab tiflaani ñaari xale ya samiha dégg nañu an nidaa woote ba mooy an nidaa al atfaalu xale ya samihoo dégg nañu annidaa woote ba albanaatu xale yi jigéen ya sami ana dégg nañu annidaa amartu dégle naa bil maaroof ci njekk amar naa dégle nañu bil maaroof yi asaairaani ñaari way wisite yi sa ima yokkat nañu al intizaara neggandiku ga asaa'iroona way siyaare ña sa imoo yokkat nañu al intizaara alxaamilaatu liggéeykat yu jigéen yi bada ana tàmbali nañu alxamala liggéey ba waxatu digge naa bi fi'lil xayri ci def aw yiw waxat naa digge nanu bi fi'lil xayri albintaani ñaari xale yu jigéen ya waxadataa digge nañ ñoom ñaar bi fi'lil xayri al agniyaa way riis ña waxadoo digge nañu bi fi'lil xayri al ganiyaatu way riis ñu jigéen ña ndax kooku jam muannas la waxad na digge nañu bi fi'lil xayri al bahth xaraf naa xamoon nañu fi darsi ci leçon bi assaabiq bi aji jiitu damair raf yi damir rafa yi albarisata yi aji feeñ allati yi nga xam ne tab tasi dooñu mën a jokk bil maadi ci maadi wal mudaari ak mudaari wal amri ak lamar wa nuridu te dana namm nag an naarifa nu xam xonaa fii xaalal fii ni mbirum fi xaal ba assaalimi bi saalim wal mahmuusi ak mahmuus wal misaali ak misaal inda tisaalihi fa jokkoom nga bi haadihi damaayri ci li damir yene bind benn weesu xam la jotoon nañ caa xamle damir dafa yi nga xam ne ñoo fes te mën a jokk ci almaadi baa ñu mën a jokk ci mudaari baa ñu mën a jokk ci lamar dañoo bëgg a xam nag léegi boo demee ba ko ci jokk nag lu ca war a xew te bëgg njëkk a xamle boo boo leen dee jokk ci fexe bu nekk saalim mbaa bu nekk mahmuus mbaa bu nekk misaal moom lay njëkk a wax moom moo aju ci bunt bi nga toll maanaam ci leçon bi kullu fi'lin bépp fexal fil xismi ci xaaj ba al awal yi ko jëkk minel am silati ci misaal yi saalimun aj saalim la maanaam aji mucc la wa fil xismi ci xaaj ba asaani ba ñaareel mahmuusun mahmuus la wa fi saalis ci aj ñetteel ja misaalul misaal la nee na boo dee xool misaal yi nga weesu boo xoolee ci ndeyjoor ci ligne bi ngay njëkk a jot ci kaw mboolem fexal ya fa nekk yépp ku ci nekk rek saalim nga boo xoolee xaaj ñaareel ba fexal bu ci nekk mahmuus la boo xoolee ci suuf xaaj ñetteel bi fexal bu fa ñëw bu ne misaal la waxat it tasalat te jokk na haadihi l afaal yi lay fexal al maadiyatu yi ay maad fii kulli xismin ci bépp xaaj bi jamihi damairi raf yi ci mboolem damiri rafa allati yi nga xam ne te tachid mën nañoo jokk danañu mën a jokk bil maadi ci maadi nee na mboolem fi xel yooyu yëpp nag foo ko fa xoolee rek muy xaaj bu njëkk muy bu ñaareel muy bu ñetteel rek jokk nañ ci damir rafaa yi nga xam ne mën nañoo jokk ci alfiilul maadi walaw an naka doonte naka yow baaxayta comparé nga bay na kulli fexlin diggante bépp fexel min haa ci ñoom xabla tisaal yi njëkk ak jokkoom bi damir ci damir ba wa bax dawoo ak gannaawam ci jokkoo maa wajatta doo fekk ne am na ittisaal naka jokku ga bi damir ci damir ga ahda sa sos na fii ci moom tax yiran genn soppi nee na boo xooloon fi xaal yi ba nga ci jokkogu damir ak gannaaw ba nga ci jokkee damir nga comparé yaar yooyu ba xam am nañu wuuteem di da nga gis ne kon daanaka amul kenn wuute gu am ci ba nga ci jokkee damir ak ba nga ko ci jokkut bu ci dara amee daal mooy sukkoon bi ñuy sukkoon li njëkk damir bi daal bu fekkee damir maanaam bu fekkee damir bi am na masque ni ki boo nee amartu xam ne amara nga daan wax léegi nga ne amar daal koy sukkoon nga ne sami'tu te daan wax samiha loolu rek moom mooy so muy soppiku te loolu sax bu fekkee alifu ñaar nga ci jokk moom loolu ci amel ne samiha wala saima kooku wayum kiluka dana la jàppandi an tuslida nga wéer wax daka yow rek maanaam nga defal sa bopp wéer mu daariha kulli fi'lin mudaarihum bépp fi'al fil amtilati ci misaal yi assaabiqati aji jiitu wa amrahu ak lamaram ila damair rafi jëm ci damiri rafaaya allati ya nga xam ne tattasilu danañu jokk bihimaa ci ñoom ñaar fa in faxalta ndeem def nga fa innaka naka yow sa tara xasat ngaa gis bi nafsika ak sa bopp ne ànnal mudaariha naka mudaarihu wal amra ak lamar li saalimi ñeel saalim wal mahmuusi ak mahmuus wal misaali ak misaal laa yataxayaraani duñu soppiku ay dam ba tey bi isnaadi ci wér ga ila damairi jëm ci damir yi li mu la wax léegi mooy fixal bu nekk saalim wala mahmuus wala misaal bu nekkee maadi boo jokkee damir rafaaye ci war a jokk itam du indi genn soppi mu ne la nag ba tey boo demoon ca mudaari mu mbaa ca lamar ja bëgg caa wéer maanaam bëgg caa jokk damir rafaa yooyu ca war a jokk da nga ko mënal sa bopp mu jàppandi lool lool waaye boobaay da nga gis ne rek moom boo jokkee damir yooyu mu daari maag lamar ja duñ am ba tey genn soppiku dalaa waxoon ne la mu daari ak lamar damir rafaa yi ca mën a jokk mooy yaaul muxaatabati ak aliful isnayni ak waawul jamaahati ak nuunu niswati léegi nag samiha dégg na bee mu indi boo ko defoon muy mudaarihu di ci jokk yaawul muxaatabati day soppiku tasmaayina di ki anti yow jigéen ji tasmaayina da nga dégg annida a woote ga nga xam ne na nga daa waxe anta tasmahu bu dee góor gi bu dee jigéen ji da nga ci jokk rek yaa ak noon su boobaa nag la jiitu yaaga moom faaw mu kasara ndax yaa moom lu ko jiitu kasara lay mën a doon ba tey nag boo ci andi woon lamar day nekk ismaa yi dëggal yaa faatimatu nga xam ne faaw nga wax ismaa yi moom bu dee lamar ji ndax lamar daa am luñ koy tëggee boo ci doon jokk alif gi dellu ci ñaar dik antuma tasmahaani wala huma yasmahaani gis nga ko da ngaa jokk rek alif ak noonu ca mujj waaye soppoo daanaka dara ci fixal bi boo ci doon jokk waaw mbooloo mu góor it day doon antum tasmahoona wala hum yasmahoona bu doon amara digle na da nga bëgg caa andi mu daari humba lamarit mu daari huma moom du am ak soppiku ndax bu dee jenn jigéen nga ne anti ta'muriina bil ma'rufi bu dee ñaar maanaam ñaar ñi ngay wàqanteel nga ne antuma ta'muraani bil ma'rufi wala huma bu ñu fi nekkut huma ya'muraani bil ma'rufi bu dee mbooloo mu góor mooy itam antum ta'muruna bil ma'rufi ca mudaarihuma bu dee mbooloo mu jigéen ma hunna ya'murna bil ma'rufi bu doon sa'ima yokkat na da nga bëgg ca mudaarihu bu dee jenn jigéen ji day nekk tas amina li ki anti yow jigéen ji tas amina bu dee ñaar ñi antuma tas amaani wala huma ñaar ñi fi nekkut yas amaani bu dee mbooloo mu góor ma antum tas amoona wala hum ñoom ñoo fa nekkut yas amoona su doon waxaada digge na mu daari moom bu dee genn góor day nekk taidu taidu boobu nag bu dee genn jigéen nga ne taani diina jokk ci yaag noonu bu dee ñaar ñi nga ne antuma taidaani mbaa huma yaidaani bu dee mbooloo mu góor nga ne antum taidoona wala hum yaidoona bu dee mbooloo mu jigéen ma it niki al ghaniyaatu yaiddna yaiddna bi fi'lil xayri kon loolu mooy boo ci andi woon ci kenn ci ñoom mu daarihu te jokk ca kenn ci damir yooyule mu des nag bu dee lamar bi lamar ci boppam nag daa am tëggiinu boppam woo xam ne faaw nga jàng ko door koo xam ndax samiha dégg na lamaram day nekk isma déggal waxada digé na lamaram day nekk xidd dëleel badaa doon ibda sa ima doon is am yokkatal amara nag moom daa am lamari boppam mur digleel la waaye gannaaw boo xasee xam ne ñu tëgg lamar ba noppi nag na nga daa waxe génn góor ga boo bëggee digal jenn jigéen wala ñaar wala mbooloo mu góor wala mbooloo mu jigéen tam da ngay jokk la ngay jokk rek waaye jëmmi fi xal ba ci boppam du amul soppi dik isma booy digal jenn jigéen day doon isma yi bu dee ñaar muy ismaa dégg leen yéen ñaar bu dee mbooloo mu góor muy ismaon bu dee mbooloo mu jigéen muy isma na kon alqaidatu takk-takk bi moo ci topp ida usnida ndee wéereef na assaalimu saalim wal mahmuus ak mahmuus wal misaalu ak misaal ila dama iril rafi jëm ci damiri rafa al baarisati aji feeñ lam yuhdis du sos haadal isnaadu gi la wéer fiihaa ci ñoom tax yiiran genn soppi kon takk takk bi mooy fi'il bu nekk salim mbaa mahmus mbaa misaal boo ci dee jokk damiru rafaa ya nga xam ne ñooy fis te mën caa jokk jokk ga du ci soppi dara dara ñëw ci tamarin yi at tamrin al awwal daa tegal kulla fi'lin min al af'al al atiyati fi jumalin mufidatin musnidan musnidan mbirum ngay aji wéer illa kullin jëm ci kenn ku ne damairu rafi damiru rafaaya albarizata ay aji feeñ allati ya nga xam ne tat tasil danañu mën a jokk bii ci moom wa isa xadasa bu xewee taxyirum genn soppi fadkurhu na nga ko tudd day bëgg indi ay fixal yoo xam ne benn bu ci nekk da lay digal nga def ko ci wax bu mat wax bu daanu te nag kenn ku ne jàngoon nga damir yi ci mën a jokku kon nag kenn ku ne ci ñoom na nga jokku damir yooyee bu fekkee am na ci koo xam ne ba nga ci jokkee damir gis nga mu am soppiku na nga wax soppiku googee nekkat bi ma ci jokkee damir sàngam am nag soppiku fexal yaa ngi nii fataha ubbi na yasal dana laaj yasalu xif taxawal wahaba maye na sadi a xomaag na xomaag bi nga ko defee am sa muy sadi a mooy xomaag mel ne wen gu ñuul gu xomaag bi nga ko defee nag sadi ya muy yaa mooy mar na ñu wax xundooñ xundooñ mooy maru méttee métti yajidu dana fekk iqra jàngal yàqtaamu dana dog isbir muñal rahima yërëm na nga xool at tamrin at taani mu jàll ci ñaareel bi day attaani isnaadul mudaxafi mooy wéer mudaaxaf wal ajwaf ak ajwaf ilaa dama iri rafi jëm ci damiri rafaaya albaarisati aji feeñ day wax nag fexeel bu nekk mudaaxaf wala bu nekk ajwaf boo ci jokkee damiri rafaa bu fés luy àtte ba mu njëkkee al amtilatu shaqaqtu xarnaa at tufaaxa pom shaqaq naa xarnanu at tufaaxa albanaatu xale yu jigéen ya shaqaq na xarnañu at tufaaxa alwaladaani ñaari xale ya shaqaa xarnañu at tufaaxa al awlaadu xale ya shaqoo xarnañu at tufaaxa boo xoolee fële mu daari ma day doon tashuqiina bu dee jenn jigéen ji da nga xar yow jigéen ji bu dee lamar jamuy suqi xaral yow jigéen ji bu dee ñaar ñi muy tashuqaani da ngeen xar yéen ñaar man na it bu dee ñu falekut xuma ya suqaani la ma banag mooy suqaa xaral leen yéen ñaar tashuqoona da ngeen xar yéen mbooloo mu góor mi bu dee ñu fa nekk ni ki antum tashuqoona waaye bu dee ñu falekut nag nga tàmbalee ko yaa ni hum ya suqoona lamar ba mooy suqoo xar leen tash xoq na mooy da ngeen xar yéen mbooloo mu jigéen ma jàkkaar lool maanaam mooy mu daari moom mbooloo mu jigéen mu ngay wàqanteel bu dee jëfu nekkul nga tàmbalee ko yaa ni ki xun na yash xoq na seen lamar nag mooy ush xoq na xar leen boo wàccee ci suuf gis xultu wax naa alxaq dëgg ca ba muy maa bi ca mu daarihuma day doon taqoo lii na da nga wax yow jigéen ji bu dee jenn jigéen bu dee lamar nag xoo lii waxal yow jenn jigéen ji bi ci topp xul naa wax nanu alxaq dëgg ca bu dee maa bi taqoo laa ni da ngeen wax yéen ñaar ci kaw rek muy ñi fi nekk waaye mën na xuma yàqoo laa ni ak xuulaa wax leen yéen ñaar albanaatu xale yu jigéen ya xul na wax nañu alxaq dëgg loolu mooy almaadi taquluuna da ngeen wax mooy yéen mbooloo mu góor mi bu dee mbooloo mu góor mi fi nekkul nag hum yaquluuna lay doon boo digal mbooloo mu góor nag nga ne xooloo wax leen yéen mbooloo mu góor mi alwala daani ñaari xale ya xaalaa wax nañu alxaq dëgg bu dee mbooloo mu jigéen ma day nekk taqul na da ngeen wax yéen mbooloo mu jigéen mi ca mu daarihuma ak qul na wax leen yéen mbooloo mu jigéen mi ca lamar ja al awlaadu xale ya xaalu wax nañu alxaq dëgg mu ñëw ci al bahs al amtilatu misaal ya assaabiqatu yi aji jiitu tash tamilu danañu làmboo xalaa afaalin ci ay fexal mu daxafati ni duñu ful wa jaw faa ak yu nekk ajwaf bay na maadiyatin diggante ku nekk maad wa mudaarihatin ak ku nekk mudaarihu wa amriyatin ak ko jóg lamar waxadd usnidat te wéeréef na fiihaa ci ñoom al afxaalu fexal ya bi anwaaxihaa ci seeni xeet asalaasat ya di yett ilaa kulli damairi rafi jëm ci mboolem damiri rafaaya albaarisati aji feeñ allati ya nga xam ne yom kin dana jàppandi an tattasila ñu jokku bihaa ci ñoom misaal yi boo ko xoolaatee da nga gis ne am na ay fexal ci nekk yoo xam ne dañoo nekk mu daaf